waaw ok ñu ngi noonu mbokki internet ñu ngi nii Zack ak Mory Serpent waaw seen def ak moom ay démonstration en même temps tamit amaale nañ ay question yoo xam te ne nañ ko posé pour ñu seetaan ko internet yi ñi ngi nii Zac Ba ak Mori Serpent fese naa ñëw ak moom fii mu def benn démonstration waaw boole ko xamal ñu tamit lu bari moom naka lay liggéeyee ak jaan yi moom lan moo ko tax a jóg daal ci askan wi waaw mi ngi noonu waaw Mori Serpent ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay waaw. waaye jàmm naka weeru koor waaw ñu Serpent gis nga de. Amba moo ngi def léegi ko. bi taxaw mu ngi nii. kii la nan Momba Rouge. ki mooy Cobra Noir. waaw fii nag ñu taxaw ku ne xam na ko sax bi moom yaakaar naa ni. waratuñu ko laam laataamale la kenn du kenn kenn kenn dootu ko laataamale sax bi fii. li ma fi génne ci ay intervention jaan kenn xam nu mu toll. yaakaar naa ni fii bu ma nee dan maa war dimbali yaakaar naa dan maa war dimbali bu ma la ko waxul sax war dimbali ndax maire baa nga ne nga jàkkaarool ñëpp xam nañ li may liggéey dëkk bi nit ñi dofuñu gën a jàpp leen li may liggéey amul ko ko gisul amul ko ko teglu bët xëy na kay danoo def leen neex rek ak taxaw kenn bañ maa seeraan waaye yaakaar li may liggéey ci dëkk bi jaw yaakaar naa dafa leer nañ fi ñu taxaw ni ay Cobra kese fi nekk sax bi fii li fi nekk ëpp na benn ëpp na ñaar ëpp na ñett li nekk fii nag laa la wax jaay ni ñuul yee ñoo fi nekk te jaay ni ñuul ku ne xam ne danger la bu la dee waaye léegi ki leen di yóbbu lu tax kooku mënu ñëw ñëw wax moom man loolu laay wax ndax nga sañ koo waxeew waaw man boobu noonu man damaa jaaxal ah ndax boobu damaa gisul façon bu mel noonu ki leen doon moom waa Rousse ko jàppee Kébé arène nationale laa ko jàppee Kébémer arène nationale fa laa ko jàppee moom mii gis nga ko day taxaw gis nga ko. waaw waaw bi yéeme de bii moom yéeme na vraiment. waaw sëñ Baba ak Cheikh ndax man Ndiogou Ndiaye sama maam Ndiogou booy sama maam. non gis nga ni mu gaawee sibila ngi noonu waaw bii su ma dafa mel ni fii nga ko jàppee de ci zag bi. te zag bi moom yaakaar naa ni ay nga di Cobra ñoo fi ne genre bii bii. yaa ni bari nañ fi torop bii moo fi ne bii. gis nga ko day waaxu day dem. ndox mi bàyyi téeméer waaw bii fii nga ko jàppee woon buñ juumul te fi nga ñëwaat tey indi ko fi di def ak moom démonstration. Uh-huh. waaw waaw li bëgg muy leer rek jaw ndax lii ba nekkoon fi laa koy bàyyiwaat ndax fayuñu ma dara. tous la man jaani may jàpp yëpp kenn ma dara li ma leen laaj weexal la rek weexal woowu noonu pour ñoom la pour ñoom ñii waaye du pour man léegi li leen laaj ñoom dañ ko war a joxe yaa ngi dégg. dëgg la kon lu leen di wax jaani dëgg la ñu nekk ni zag bi fii ay Cobra ñoo fi ne te jaani ngi ci duusi si anglais bi duus yi ku ci toog sax wóorutul toog wóorutul toog waaw toog rek erreur la man maa ko wax ba may wax loolu du tey ba may jàpp jaani siis anglais yi du tey kon nag fii sax bi fii li mu fi génnee ci ay cobra kenn xamul mu toll léegi nag kooku ñoom nangu ñoo dimbali damay taxaw di seetaan rek kaaf gi bu feesee jaan yëpp laay sottiwaat ci dëkk bi man maa ko wax te ba kaaf gi fees bu feesee ñu xam ne lépp dëkk la ndax état nangu maa dimbali nangu maa ñëw jël ma jël jaani xool fu ma leen dugal nangu loolu te jaani ci kër jàmbur daa leen di jàppee bu kaaf gi feesee damay ñëw ba fi la la fi yow mu ngi noonu moo serpent mais bëgg nañoo xam zag bi fii ñaata yoon nga fi jàpp jaan. bari na ak ñaata façon ban ban façon jaan ak jaan nga fi jàpp daal ñun bëgg nañoo xam loolu. bari na yoroo ni jaan jee. waaw fii ñaata jaan nga fi jàpp. ay fii laa ko jàppee fii fii fee fee fee fee fee laa ko jàppee de ci douze la nekkoon ci douze voilà nañ xam loolu baax baax. dëgg la rek ngi noonu moo di serpent dégg ngeen ko kon kii état da ko war a jàppale ndax liggéeyam vraiment vraiment rafet na daal ndax lii nii ku ko xool xam ni ku mat amaana dootoo dundati moom mu koy jàpp di ci xeetali doomu aadama yi. muy dugg seen biir kër mu leen mu koy génne ah kon kooku wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na te état war na koo xool jàppale ko wutal ko ay moyens jàppale ko boole koog ñi muy àndal waaw mi ngi noonu. ah. ndox ah. ndox mi ndox mi lu waral. yaa ngi gis bu ma du naan day naan mu ngi nii ma koy jox. mu fi de bii ku mat da ngay léegi léegi bii. bi la tubaab di wax moment rouge bu ne la càpp da ngay seddu guy kii nga gis ni bu la matee doo yëngu doo yëngu daam ñaari vene geen gi daam vene fii daam vene geen gi daam genre genre genre dëkk bu fa ne da la koy dóor wala loxo soo da la koy dóor wala yow léeg boo ko jàppee moom la lay dóor mais nag lépp ñàkk rek yi may def nii yëpp ñàkk ñàkk moyen au moins moyen mooy la mooy ñu yow tabaxal ma fi ma bëgg état ñëw ak ak maire yi nga xam te ne leen bu leen ko joxee seen kër lay dem damaa a ñëw ma bëgg sama tool maam yaa sama maam bari na ay suuf fii mais ñoom dañoo war a ñëw tabaxal ma li ma bëgg ba ma leen ko dalee laaj du tey yaa ngi dégg jaan yi nag man damay damay laaj rek laaj laa man mais bu baree bu kaaf gi feesee fépp am nay jaan yaa ngi gis kër ga am nay jaan bu kaaf gi feesee fi ma jàppoon jaan yi damay ñëw ba foofu ma dugal ci saako daal di sotti ndax amu ma leen def yëpp fi laa leen jàppee ci ay kër laa ci ay kër laa leen de yi nga gis yëpp ci ay kër ci ay a dimbali dañ lay dimbali ne ndax ñun ñii ñoo leen di jàpp fu mu mën a ne ci àdduna ñoo jël ko téye ndax du lor waaye comme que li lore la nag te ñun ñu koy jàpp waaye léegi lu tax gars yi mënuñoo ñëw si ñun jaw dafa leer mi ngi noonu Mori Serpent. mais jaan ju ñuul jooju Cobra bi bëgg nañoo xam foo ko jàppee ak noo ko jàppee moom noo def ba. jàpp ko ndax kii jàpp ko yombul kii moom heure boo fi jàpp jaan damay daj mitit boo bëggee dégg-dégg. fi moom. mais boobu foo ko fekk ci néeg nga ko fekk wala ci lan. wala ci tool wala ci lan ci dus ci dus. ci dus foos foos foos. foos waaw ci foos laa ko fekk foos. mais Mody lu ñu jaaxal gis na ni tey nga ñuy wax ni intervention yu bari yaa ngi koy yaa ngi jàppee jaani si biir duus yi quoi biir pax yi paxu duus yi am na loo ñu si dem expliqué lan moo waral lool noonu jaani à chaque fois si paxu duus yi si foos yeeg yooyu noonu xanaa jaan dafa bëgg pax. daa bëgg duus jaani bari ngi ci duus yi kër yi bari am wala ah? kër gu bees nag moo kër yu bari am nay jaan. 16 anglais nga wax de 16 anglais ku ci toog sax yaa ngi ci erreur. allahu akbar yaa ngi 16 ah? yii laa am nay jaan kër yu bari am nay jaan. yoo xamante ni jaan yu bari ñu ngi génnee ci douche bari am nay jaan yaa di génnee ci douche boo duggee ci YouTube bi nga tapé moori Serpent da nga koy gis. ah mu ngi noonu doy na waar képp koo xamante ni jaan dalaa sonal wala genre yi xeetu yu mel noonu ki nga xam ne mooy Mori yàlla may na ko xam-xam noonu macha allah Serigne moo ñaanaloon maamam. mais mais mais bëgg nañ nga ñëwaat si parce que ñu bari laaj. Ndiogou sama maam. Ah, ah. waaye ku ne xam ne Ndiogou benn la fi moom la papa ak sa Samb di wax Ndiogou togg ceeb bi ak Ndiogou Ndiaye bi àndoon see ànd borom gaawaan borom dërëm ak ngërëm kookoy sama maam ma mhm. yoon bi méttee lool dëkk bi méttee lool tubaab bi ku mu gis ngay def doftu mu ñëw jàpp la gars yi di làqatu sa maam lan yebaloon mu dem ci tubaab ba ca ndar ni ko sëriñ tubaab nee na mënu ko la ñëw tey mënu ko la ñëw ëllëg moo sañ maa tey man loolu loolu wax tubaab bi ca ndar jàkkaaroo tubaab bi ni ko eh mun a mun ko sëriñ tubaab nee na mënugul ñëw tey mënugul ñëw ëllëg moom nag moom sëñ Bamba moo sañ waaye man mii maa tey loolu wax tubaab bi tubaab bi di ko xool mu koy xool te jamono boobu ku tubaab bi woo nga raf rafi koo koy sama maam moo jàpp jaan tooñ kon moom fii di tooñ kon man bu ma ragalee dan maa war a dóor ba bëgg a dee man maam ragalul mën na ni tey jii bu la neexoon sax mën nga toog di faj quoi lu ma neex laa ci def faj bee gën a ndaw sax. ah faj bee gën a ndaw ci li faj. sànq si gis naa ko ni dafa am loolu noonu. nerf sciatique nerf sciatique très bien. jaan yi may jàpp nii moo tax ma naan état na ñëw jaan yi laay rey génn ci ay bagages di ci faj ay doomu aadama ñu am nerf sciatique ay genoux genoux yu métti. Ah, ah. ñu am tànk boo xam te ni mënatoo dox. Mhm. lefeñ bu toog lu yàgg mënatul dem. Mhm. jaan yi nga gis nii am nay bagages secret la rek secret la. kooku nag faaw ñu gaa yi ñëw rek tabaxal ma lépp mu gën a yaatu ma mën a exploité ànd ak moom léegi fi ñu demee ne léegi ñaata jaan lan rey ñaata jaan gaa yi ngi seetaan sama seen bi dafa intervention Tawa Fall trois cobra lan rey gaa yi woo ñu daw dañ leen a woo nangu noo ñëw waaw ñun yaakaar dañ leen a woo nangu noo ñëw de fee léegi nii fi ma jógee sapeur pompier nañu woon nañu ko préciser dañ ñoom ñemewuñ quoi waaw loolu lan wax ñemewuñ lan wax ñëwuñu wax wax waa ji xanaa doo góor yow yow ñu yaakaar la ñu woo la nga naan xanaa doo góor kaay lan la wax ñëwal. te finalement te final te finalement te finalement yaa mujjee ñëw jàpp ko. Ah, man yàgg naa dem man moom yaakaar naa ni bu ma demee mu ñaaw mooy li gars yi di wax ne Mody. waaye waaye Mody boo ñëwul mu ñaaw dëgg la de. maa la ko loolu lii kenn du ko ci def lii kenn du ko ci def amul war wëral wëral ba mu daj amul amul nii amul man maa la ko loolu wëral wëral ba mu daj dañ koo xam nag du bëgg a siiw. soxla na bëgg a siiw sunu maam ma ko daan def ñuy dimbali doomu aadama yi man maa ngi sama métier waaye lii tey jii nii tax na métier yi bëri bëri sax nangatumaa dem liggéey ndax nit damay woo moo dem dimbali ko bàyyi fa ma nekkoon dem dimbali ko moo tax sama métier sax daanaka lii da koo yàgg waaye bu ñu xefee ah xam naa ni fa laa mais mais mais Mori tamit gis nañ la fu ne quoi ñun gis nañ la 2S gis nañ la TFM gis nañ la fu ne te doon na loo xamante ni lu ngay liggéey nii yenn yenn télé yi war na laa mën a invité war na laa mën a invité xam nga ñëw fay la sax nga wax li nga xam ne mooy nga wax li nga xam ne mooy njariñ bi quoi. bari na de. li nga xam ne mooy njariñ parce que lii lu muy lu muy fàdd si ay nit bari na lool lool lool lool. chaque jour mu rey dëgg la de. am na ñu ni wane am na ñu dul wane day rey ñu bu ñu yeexee sax mu rey bëgg dama njaay fan doon dem ca jaxaw siin daa dee boobi daa dee jaan da ko mat mu dee ñoo yeex amuñu sappoor yoruñu ambulance ñu ne tali bi ñu ne gars yi yem ci tali bi yoruñu ambulance yoruñu dara moo tax daa dee voilà bu yeexee mu dee de jaan boo yeexee mu dee. mais mais mais Mori ñu bari da naan ñu bari da naan sa jaani du maatem loolu loo leen leeral. li waral loolu noonu mooy li ma ciy def waaw li may def ni ko ko def. yow ne ne sa jaani du maate quoi amuñu ay bëñ. da naan ñëwal rek da naan ko mu ñëw rek koo xooloo da nga naan ko mu ñëw rek mu ngi boo ñëwee daal yaa ngi ni taxaw yow foo mën a taxaw di wax foofu rek ngay taxaw di wax waaye ku ñemee li may def da nga ñëw dooroo ko defati boobaa moo la nan la naka la booy wax nag fi nga toog ngay toog di wax rek baa ngay toog fi nga toog di commentaire waaye moo di nga ñëw naan ko nii booba bakkan day def bakkan bakkan man maa la wax loolu du am nag loolu sama intervention kenn ma fekk ma taxaw nga naan ma Mory Sédar di sabal bi suufa nga ji nga jox ma xaalis boo mën a jox xaalis nga wax dooroo ko defati ci àdduna booy commentaire fa nga toog ngay commentaire ku ci am fit baa nga am looy wax fekk ma fi ma ne nga taxaw ne ma Mory nangam nangam o ma fenn interdit fu ma neex laay jaar ci àdduna maa ngi xaar ku ne ma Mory sabal bi suufa nga ci nga xool fi nit fekk eh, Mori bëgg na nañu xam jaan bi lan lay faj quoi loo xam ne yaa ngi ko siy faj parce que nit ñu bari dañ si am ay problème ay yan feebar la mën a faj jaan yi ay ndigg yi metti wala tànk yi metti. nerf sciatique da koy faj. waaw surtout nerf sciatique boobu noonu da koy moo la naan tubaab di wax ay yàq. zenu zenu zenu. Mm-hmm. léeg nga gis nit di jàmbati tënu mu dem hôpital ñu rajo ko ñu ne ko sa sunu bi daa mel ni luy màggaat fii du jaan bii de du bi moo koy faj amaana beneen xeetu jaan beneen mm-hmm. beneen xeetu jaan moom mooy faj loolu noonu mais du ma ko wax mais nit ñaa ngi di ko rey te dara kooku moom laay jël boole ko li ma koy booleel faj ci nit am ñu nekk ba États-Unis ñu may woo di ma déclaré xeet boobu noonu maa ko téye maa ko téye mais nag nekkul yii la rek waa mais jaan yi dafa bari xeet bari façon. Hmm. bu ci nekk nag ak la muy def nag jaan bu ci nekk rek ak la muy def loolu xam mooy noonu Mori Serpent noonu gis ngeen ko ni muy mayee jaan bi mu naan lii lii lii mën naa ni sëtu Serigne Touba ku Serigne Touba seexalul mën naa ne fii Sénégal moom boo ko fi defee. <laughs> waaye Samaane mokk na bu yàgg ka ma ko wax ak sa Saamu nee na Samaane mokk na bu yàgg maa ko sa ci Saaw Sakkour ndeysaan wa makka laa wa makka la woo moo ko wax. saamaane mokk na bu yàgg Mame Bamba ko de ah, bu yàgg wér na lii ko ci def taxaw di wax ak yow nii bàyyi xel lijjantiwul jaan yi keneen ko yor jaan day taxaw di xool jaan yi di la bàyyi xel waaye waxal sa dëggante ak sa yàlla rek man jaan yi lijjantuma leen ndax damay mat mu dagg ndax li ma ci def ba tax boo matee du ma wàññi dara wala mat nit du ko dara kooku man la voilà loolu nag sekkaral la da nga koy bëgg ñëw ma jàngal la ko mënoo koo bëgg mënoo toog fa nga toog bëgg a xam la ma lan lay muuri def ba tax jaan yi ko laal koo bëgg a xam da ngay ñëw ci man moo la na laag naka la baatin la ay la kay du ma tey du wàññi dara kooku boo la koy dégg man mën nga ma kaa jàngal loo xamante ne da nga koy wax rek du la mat du la def dara bu la matee sax amul lugu ah gën a dee jàppit mu dagg bu kenn du lugu secret la looy def la waaw looy def de nekkul nii da ngay ñëw jàpp ko nii rek yóbbu sa kër de boo ko defee mu yóbbu la mais mais mais mais jaan mu mel genre cobra te cobra noir rek nan waaye kii moom baa rouge amul fii amul suñu dëkk bii kii dafay juux rek bii dafa rouge day firi bàngoor bi kon nee ni muy firee. kon ça veut dire que dafa jéegaani quoi ñëw fii. waaw dafay dafay juux rek. Kébémer laa ko jàppe arène nationale bu Kébémer fa fasiku see nekk fa laa jàppee jaan bi. ko est-ce que jaaru si ko neer ñëw. ah xaw de waaye daal fa laa taaseel na ñëpp xam. ah doy na waar daal. ko maa dem jàpp ko foofu génne ko. ni muy fire yaram bi ni muy def yaram bi doo ko def mu génne ko. rek da nga koy def pour mu firéeku quoi pour mu firi yaram. ah boo ko laalee mu daaw mu firi. moo ngi waaj a firéeku de. Ah, boo ko laalee rek. baa du fi tax ñëw fii. nga ko moom du karase kee day karase mais kii du karase kii taxaw ni nii rek ëff mais kii bu yëkkatee day tufli mais kii bu yëkkatee du tufli xool différence boobu. waaw léegi baa du li bu dikkee du ñu rey. moom du sirati moom day yëkkati taxaw. kon mais ëff ëff nii rek mais bii bu yëkkatee day karase day ñëw day day ah bii bu tuflee da ngay gis. ah kon xaaral ñu tourné comme que tey comme que day ëpp. mais bii day yëkkati bopp bi taxaw nii rek. waaw day taxaw nii rek xool. mooy noonu kon boo booy boo bii nag day tufli moom. jaa jaanu Europe la quoi boo gisee nu xam ni dëkkul fii. dafay jéggaani ki mooy Mamba Rouge. nit ñi ñuul ñi fii nañ dëkk Afrique mais nit ñu xonq ñi ñoo ngi dëkk euh, Europe. kon jaan bi jaanu européen la pour muy leer gis nga kon muy firé comme genre cobra la mais mais mooy cobra ah doy na waar de moo ngi noonu de moo ngi noonu avec Mody Serpent lépp lu la si jaaxal rek mën nga ko woo si numéro yi nekk suuf comme ça moom dina leen dimbali bu baax a baax a baax a baax dina leen dimbali. dama jàppal ko sa bopp. ma la lépp lu mu la si wax rek mën nga xaa takk téere te xam ni du dañ vraiment yàlla dimbali ni ko lool lool lool lool macha en plus Serigne Touba moo ñaana seen maam mu doon loo xamante ni ku ne xam na sëñ bi ay kiraamam kon kii bu defee lii rek loolu jommu ko vraiment mooy noonu moo di serpent mu ngi noonu gis ngeen ko mu ngi jox serpent bi ndox ñu koy woowee Mamba Rouge mooy jaanu Europe quoi bu dee fii nag moom mooy ñaangoor te noir après njëkk yi si njëkk ya ah? jaan yi ma jàpp yëpp xam yow yéen a ma gis may tourné ay di jàpp jaan jaan bu ci nag bu ko jàppee am ma bàyyi mu dem am na yu ma bàyyiwul am na ci yoo xamante ne nii jël naa ci ma si jël def ko ci njëkk njëkk xam nga wala mhm. xam nga njëkk bu ci nag bind naa fa kon yow li nga bindee sa scène bii waaw yow yaa lii boo xoolee di nga li muy yow da ngay mhm. bu ci nag ak la dox ah? gis nga dégg bu baax kon tey jii lu tolloog bu nit bëggoon bayra bayra bu gaaw dégg ma xanaa lu tolloog ñaari téeméeri njàkk mhm. ñu ngi ci guya babaak village mhm. boo bëggee da ngay ñëw beneen yoon dina fa demaat am na ñu ñëw di sangu foofu noonu ñu dem babaak waaw am na ñu ñëw foofu sax di fa sangu comme ay nekk rek jaan bu ci nekk rek bu may jàppee la may jël ci moom secret ba may am ci moom bu ma waree bàyyi ma bàyyi bu ma waree téye ma téye ma waree jël ci moom xam-xam léegi rek la may liggéey def ko ndaa def ci la ma tey def ku b sangu da ngay ñëw foofu sangu boo ñëmee ma ne boo ah ñu bàyyi la nag. mais mais mais nga moom dañ leen teg ne nga daan dugg boo jàppee jaan na xamee ni bii secret moom ci moom quoi am na bayre. am na bayre jaan bi am na bayre. jaan kay bañ ko foog génne yow yaa ngi nii génne ko nit ñëpp ñëw jaan yëpp am bayre ndax amul ko xoo ñemee. léegi jaan bi jaan bi nga xam ne moo lay protéger yow boo jàppee jaan noo koy xamee aussi. li may protéger man. jaan moo ne mooy protéger nit. waaw ah, jaan kaaraange la quoi am na ci loo xamante ne nii de ci jaan ju ñuul bi laa koy liggéey waaw moom karange moom yaakaar naa ni. moo si sax du xool nii mais amee. Ah? jaar bu ñuul laa koy liggéeyee. non lo nga am garde nga am garde. nga am garde uh-huh. waaw ci jaar bu ñuul bi laa koy liggéeyee. waaw yow mi ragal sax amoo fit. c'est fit dimanche. comme tiit di tapet ragal xam ragal am na. boo ñëwee ma jox la li ma jox defal la li ma lay defal boo taxawee lu ne mën nga koo song. ah da demal da ñëw. loolu da ngay naan wala da da nga koy takk. boo ko naanee dee. est ce du est ce que xaftal genre xaftal yooyu wala. li may jëlaat si bi moom laa koy jëlee ndax dama koy rey génne ci li may génne sa kanam jox la ah que. ah moo ngi noonu de gis ngeen moo di serpent vraiment yàlla yàlla yàlla daf ko may yàlla daf ko may si wàllu si wàllu jaan gis ngeen gis ngeen jaan bi nu mu koy def gis ngeen xam naa fii moo xaw a xonk sax moo tax du leer naañ mais vraiment yàlla may na ko lool lool lool lool lool si wàllu si wàllu si wàllu jaan wàllu secret mu ngi noonu kaaf daal la yor benn kaaf. kaaf bu feesee jaan yëpp bu mu jàpp rek. waaw bu feesee gis ngeen kaaf gaa ngi ne. gis ngeen jaane ndaw yi gis ngeen ñu tuutee gis ngeen mooy noonu. mooy noonu doy na waar daal doy na waar lépp loo xam ne bëgg ngeen kaa xam si wàllub jaan wàllub secret mën ngeen ko bind si commentaire yi moom bu soobee yàlla na si def vidéo moom ci seenam bi nga xam ne mooy Mori Serpent mu wax leen si lu taax da du fay gis ngeen mooy noonu mooy noonu mooy noonu dugal jaan yi tubaab bu leen boolee dañuy reyante mais man dama leen di boole ñëwal sama kër yeneen yaa nga fa sax yaa ngi dégg yii rek laa mën a génne fan yi nit di gis jëlal micro bi ceeb bi lépp laay boole yëpp tout ceeb yeeg yeeg yëpp laay boole gis ngeen fii moo ngi fees dell mel na marché bu tas dañuy liggéey ay kon ay kon ay kenn xamul boo mënee laaj normal nga laaj normal ñun fawuñu loo ma xam-xam xam wala lu ma xam-xam lii loolu la di lu nuy dóor maata wala dara ok dañuy liggéey waaw dañuy liggéey rek dañ lay wax ngay dégg leer laa lay wax. suñ Bamba ak Sèye mooy mooy loolu. may liggéey Sénégal ba Sénégal ñu de waaye ñu. yaramam nekk ci biir dafa mel dañ fay juddu de yii nii wala yëpp da leen a jàppi woon. yëpp dama koy jàpp ci kër man de gomale du ma rëbbi jaan yaa koy gis sa kër woo ma ma ñëw baa nga gis ko sa tool woo ma ma ñëw man rëbi wu ma omat jot rëbi yaa koy gis tàppe si YouTube bi Mori Serpent 899 51 97 allo Mori jaar nga sama kër wala jaar nga sama tool ma daal di jug taal seen oto ñëw waaye di jaan doxuñu yooyu ñàkk yu nu fay noonu tamit yaa koy gis woote ñu wax la nga xam te ni ko nga def ko mënoo ko ñu xool nu def voilà mais mais déplacement bi nan bëgg a xam naan la nga koy defee. ça dépend ci déplacement bi fi fi nga ne dugal. dugalal fee 899 51 87 ñëpp xam nañ ko ci YouTube bi fu jaan nekk bu nu woowee ñu ñëw teen ak lépp maa ci dugg gisatoo leen saafara buy dugg ci teen amul man maay dugg ci bi teen yi di génne jaan yi kon ñun dañoo war a fonk dañoo war a respecté ndax foofu ñu làkkatu ndax lii ku koy jàpp ku ne ndaanaan nga jaan ku matt nga dee kon ku koy téye dañ ko war a respecté jox ko cër Sénégalais nag xamuñu loolu kuy foo leen xam ñun foowuñu voilà mi leer waaw mu ngi noonu mu nekkoon Mori Serpent gars yi yëpp xam nañ ko si wàllu jaan macha allah yàlla dimbali ko si lool lool vraiment mais Mori Mori tey def ngay révélation yu am solo te dinañ ñëwaat si yeneen si yeneen jour si yeneen épisode ñu amaat ci leneen lu ñu waxtaanee parce que à chaque fois saa soo defee intervention rek war nañoo mën a jël xam loo jàppee jaan bi ak lan moo ko war ak lan lay faj moo di sa dernier mu ak lan ngay wax mbokk internet yu nga xam ne ñoo nekk Mori Serpent ak Allô Sénégal di la seetaan xanaa di leen wax kay ñu bàyyi xel li may wax di leen wax ni nañuy topp Mori Serpent di ma seeraan di xool li may def ndax ni ñaa ngi koy def wala li may def Sénégal ba Sénégal ndax kenn kii rek moo koy def wala amaana ñeneen ñu koy def ndax loolu dafa jar a bàyyi xel man man kese la ci àdduna foo mën a ne ci àdduna boo nee jaan Mori la ñuy wax wóotuñ kenn ci jaan yaakaar naa Mori la ñuy wax loolu yaakaar naa kenn doon ko laataamale Mori Serpent nag dëkkul fenn fudul yaa ngi dégg ñëpp xam ma sama numéro téléphone 899 51 97 boo bëggee seetaan nag mën ngaa dugg ci Mori Serpent nga abonné foofu noonu mooy sama chaîne boo moomoon sama bopp tey ji gars yi sawaay dafa ñëw tey kër ga pour war a maa jël ma defal ko reportage ci seenam pour nit ñi xam li may liggéey li mu doon man lii nag bañu ma ko ku mu neex bu ko neexee na ñëw wax lu ko neex daal teg ay caméra ma defal ko li nga xamante ni ko seenam nit ñi seetaan ko ndax ma ma ñëw nii sax fee sañ ñëw ndax dama fee jàpp jaan jàpp ti fi jaan ku def Mory intervention sax ba xam ni fii toj naa ko tojati ko yaa ngi dégg Mory kenn dootu ko laataame léegi biir Thiès ñëpp ma xam ambulance bi nan ma ko jox embauché sama équipe loolay wax ji très bien mais loolu bëggoon jox la oto état Sénégal nan ko jox oto kii ñun ñoo fowandoo xam naa ko bu baax li muy def nii du loo xamante ni da koo for wala beneen affaire lu mu doon la ci ay maamam ñun ñu xam ko bu baax ndax man mii doo xam ne sama benn jaay boo xam ne deux heures du matin la ko jaan mat bi mu ñëwee fëgg sama fenêtre dañ ma bas yóbbu ma kër Baye Diagne boobu papa mi ngi dund yàlla ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana te yeexe na ko ñu demee ci Baye Diagne dañ koo yee defuñu fa cinq minutes ma ne ko ma ndax jaan ji na mënu ma wàcc na ñoo àndaat dox ba biir Daaru Salaam Sénégal nag dañuy gis koo xamante ni day yor métier ñu war koo mën a jàppale duñ ko jàppale dañuy toog di ko seetaan nañ ko wutal oto bu baax jaan dafa fragile de. ak dëkkuwaay aussi ak dëkkuwaay. parce que këram ay jaan kese fa nekk. man xam naa ko xam naa ko bu baax. ay jaan xam naa ko bu baax yàlla yàlla dolli man gi yàlla defal ko xéwal lépp lu mu séntu ci lii suñ borom defal ko ko ci. tey état maa leen di woo ñu jàppale ko jox oto bu baax boo xam day mën a dugg ci forêt bi. oto buy dem ci àll. waaw dañ ko wutal bu baax boo xam day dem ci forêt. wala sax ñu embauché ko comme pompier. pourquoi hmm. pas moo loolu mooy yoon sax. moo moo équipe moom. man commencé soxla ñoom sapeur yi. Hmm. fu sapeur bu ne bu leen woowee jaan bu ñu dem nañu woo Mori. mu yàqal leen ko fu leen leen Kolda Tamba Ziguinchor fu ne jaan bu dëgër bopp bu ne. ñu wax leen jaan ñoom bu dem ma allo Mori ma ne waaw ma intervention jaan sangam sangam. spécial ma taal oto yi kat loolu lañ soxla mais waxuñu la nga jël ma ñëw ma ñëw seen la poli poli polyvalent laa polyvalent ñëpp laay liggéeyal ñëpp bu ma mënee embauché sama équipe jël sama numéro téléphone fu woo jaan ñu woo ma ndax bu leen jaan duñ dem ndax dañ woo jaan nga naan ndax yaa gis jaan ji mhm. ndax yaa ngi jàkkaaroog moom luy yaa ngi jàkkaaroog jaan yow jaan di a naaw man bu ma wooyee ndax lan ndax li ma woo day rey danger la bu doy waar moo tax man bu ma woowee damay jug naaw oto ma yor baaxul mais damay dawal dawal boo xamante ni damay leen man dinaa doon mën sax li tax muy dawale nii fekk ñàkk xam mais bu ma li tax may dawale nii da ma naawal wala xaaruñu xajal la nga jàll mais nag liggéey bi fii moom dañuy wax rek ñëwaguñu boobaak léegi mais dañuy wax rek ban dalay wax nag yaakaar naa du tey jaan du gis ñu kenn ku ñëw seen bopp leen fi nekkal nekkaluñ fi kenn askan bi nag sonn nañu. vraiment war nañ war na war nañ kaa jàppale quoi am ci doole seen tubaab sèbre. lu muy def nice noonu lool moo ngi dimbali nit ñi di leen jàppale si yenn problème yi fu waaye am jaan bu dikkee daanaka daanaka bu dikkee da koy jël facilement macha allah euh, mbokki internet yu Allô Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy suivre Mori Serpent euh, ñoo ngi leen di bàyyi si beneen si beneen. si beneen épisode incha allah rabbi ak Mory